mbokk yi ñi ngi am mbégte kontaan di leen siyaar ci ñuy suivre lamb rek ak lutte Sénégal ak euh, seen lamb TV ñi ngi tey fii ci arène nationale janoo ki nga xam ne mooy Liss Ndiago xamuñu ne lu ko fi indi dañ koy bàyyi ma nuyu nuyu ñuy suivre Liss maa ngi lay nuyu la siyaar. waaw ñu ngi leen di fay gaan gannaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Mariam sell bi waaw ñu ngi nuyu ñëpp di bëggee àdduna di nuyu képp kuy bëggee Liss Ndiago waaw ñu ngi bu baax. mais Liss lamb amul tey de te dama la gis arène nationale lu xew. waaw tey suñuy kilifa ñoo ñu woon suñuy papa muy waa CNG waaw ñu ñëwoon tey pour sekk benn waxtaan bu ndaw rek waaw. waxtaan bi mi ngi aju ci maanaam aj bi ñu aju la. waaw waxtaan si aj bi la ko mhm. waaw parce que moom ñun moom ay xale leen waaw dañoo juum waaw dañoo def erreur quoi mhm. waaw te ñu ñëwoon tey pour jéggalu affaire yooyu. Mhm. mais en tant ndaw nga nekk xale nekk ci yoonu làmb bëre ñu gis li ci am am CNG aj la te reliquat yow mii ndaw noo ko dundee. waaw ñun déggoom lox. ay xale lañ ko waaw te ñun maanaam avantam amuñu leneen lu dul làmb ñu làmb mooy suñu métier quoi waaw ñun boo ñu xañee làmb rek xañ nañu lépp waaw donte moom dañuy bëre rek waaw xamuñu sax avantam ñoom ñoo suñu kilifa te tamit gis nañ seen liggéey bu rafet si làmb quoi booba léegi waaw ñu ngi soutenir mbër yëpp waaw dañu teg si yoon quoi que ñun moom ay xel la ñun boo ñu bàyyee rek mun nañ def naka sudul noonu mais comme nga boobu léegi ñun ñuy teg si yoon avantam ñun ñoo juumoon rek waaw ñu ngi leen di jégalu waat bu baax tamit. mais am am ndax lii après waxtaan na ci ay supporteurs am ak ñi nga xam te ñoo def lu mel. waaw samay supporteurs tamit dëgg la yàq yàq nañ ko waaw mais tamit waaw mais xam naa tamit doo du leen daraat lii. waaw lii moom du du doon loo xam du leen waaw dina leen daraat quoi parce que tamit ñoom bu ñu seen liste day bëri chaque dimanche waaw bu ñu xamoon lii lay lii mooy après mooy tegu suñu kaw mais du leen daraat quoi. te tamit foo nañ ay wér-gu-wér ne euh, liste dem na ba tollu sax benn moment. dafa naroon génn ci làmb non loolu yëpp waaw ñun moom déw ay xelu xale la rek mhm. waaw mais ñun làmb lañ am ko waaw ñun mun ñu am leneen lu dul làmb mhm. yee te tamit ñu bëri noonu yaakaar si ñun yaakaar nañ si làmb trop sax ginnaaw yàlla te incha allah mooy loolu. CNG ñoo la yow yaa bind sa demande pour ñëw wala. ñoo bind demande mhm. waaw ñoo bind suñu demande pour ñëw waaw di ñaan yàlla tamit ñu jégal ñu quoi. waaw mais am nga yaakaar ni boo duggee ci biir lépp li nga bëgg rek ñoom dañ la ko defal. waaw incha allah parce que ñoom suñuy papa lañ rek. waaw suñuy papa lañ ñun seen doom lañ. waaw te amaan tamit ñoom ay borom xol yu rafet lañ ko waaw. waaw lii lii la si mën a lancer ci ANCAR ëllëg mbër yi nekk ci biir. mbër yëpp di lancer appel si mbër yi di wax ne ñun làmb lañ am. Mhm. te lii sport la. Mhm. yaa ngi da ngay daan suba tamit yàlla moo xam. yow yow mbër bi di nga entraîner di nga ànd ak say mbokk. mais yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko ndam waaw na supporter di xam ne ñun lii suñu métier la boo la ko koy yàqalee abar tamit ku si nekk si yéen mun nga nekk si leneen ak leneen abar ñun dañuy toog quoi waaw ñun làmb lañ am ñun boo ñu bëggee rek dañuy bëggal làmb waaw képp kuy supporter liste di supporter bépp mbër waaw nañ moytu di def luy yàq waaw wala di def loo xam dañ leen siy joxoñe wala dañuy teg seen mbër ay daan waaw parce que tamit waaw ñun làmb lañ am quoi. mais gis nañu depuis bi ñu aje boobu la tamit terewul chaque jour rek yaa ngi ci biir làmb yaa ngi ñëw di wane sa bopp di dem. waaw parce ma ajee sax man samay morom dañuy ma toog di leen seetaan il faut ma ñëw soutenir leen lu damay ñëw waaw man làmb laa am mais ginnaaw yàlla man làmb laa am billaahi mais ginnaaw bi nga toog ndax tamit yaa ngi am ay proposition ci promoteurs yi wala. waaw man toujours moom maa ngi may proposition. toujours ñu ngi may proposé ay combat waaw toujours ba nii may wax ak yow nii. waaw ñu may proposé ay naaru sogaas waaw ak yeneen i combat quoi waaw mais man bu ma soñoon moom waaw bu at bi wàccee nañ ma jox Zarko ma bëri moom quoi. Eh, da ngay xaru xanaa. billaay wala yow wala yow lim def bopp mbaam bi moo la metti. de warum la. waaw añ nañ liis. Zarko mu ngi ñëw si làmb ji dinaa la ay bopp mbaam. mais quand Liss Ndiago arrivé. yes Zarko il faut mu dugg mode silence quoi. non xaaral euh, Liss Ndiago nag bul bul sa live bul tayal sa carrière Zarko moom bokkoo foofu dëgg yàlla. Zarko. waaw maanaam Zarko na bàyyi naxante bi quoi. waaw. Euh. tey jii maanaam yéen ñi journaliste nii. pour mu nax leen day yomb mun na ñëw teg benn genre xam nga crise yi affaire yooyu. Euh. ngeen jàpp ne waa jàngoobu. waaw Zarko du dara. xanaa gisoo lim def du dara na ñëw man ak moom ñu bëree Zarko. sama retour si làmb ji yow laa bëgg a bëral Zarko. mais mhm. quand Liss Ndiago arrivé il faut que nga foog mu dugg mode silence quoi. mode silence waaw te yow yaa ko bëgg a dogal yow. quand Liss tout le monde silence. billaay ah. Zarko ci la bokk. quand Liss Ndiago arrivé. waaw tout le monde silence. waxkat yëpp dañuy noppi. voilà. Ah. Mhm. kon moom daa bokk ci Zarko day wax maanaam bu dee sax xam nga waxkat dafa am na nañuy wax di wax loo xam ne moo nekk si ñoom. Zarko day wax loo xam ne newul ah, si moom. waaw di jëfe loo xam ne tamit nekkul si moom day ay wala. lu gën a oyof tuuti waaw. léegi làmb léegi coow la. coow Zarko damaa coow làmb. Mhm. Zarko lu may duy CSA bi du ko duy. mais nag mais nag mais nag euh, Liss bu ñu waxante dëgg rek. sa a euh, Aliou Ngueye du signé contrat sa diggante ak Zarko même bu Zarko nangu woon. gi nga Zarko tey avancé bu doon nii cëpp cëpp yaa ngi dégg même bu dul samay si ay ceer ay samel lañuy dem jëli avance bi. jërëjëf barki alxuraan. si kon boobu a sa laay. déggoo lu mu la maanaam làmb amul yomb. Mm. yaa ngi dégg bu naree ñaaw rek maanaam suñu mbër yi nii pour bëre waaw bu arbitre sifflé rek maanaam na yëngu ko waaw Zarko gënumaa ñeme lu métti hmm. gënumaa soxor hmm. yaa ngi dégg mais est-ce que euh, amul ay morom ah, avant Zarko samay morom ñan nga ma mën a mu entraîné nee na ñaa bu ndaw caat daawda faal. ay ñaa bu ndaw ay caat daawda faal yow yaa leen ko waa man tudd ma leen de. mais bu ma lamb boole ñëw damay bëri ñoom. waaw man bàyyi ma fi kenn. sa diggante caat daawda faal neexul. mais dafa doon def interview benn jour si mbaytin uh-huh. ne Liss Ndiago na ñëw jël mbaytin uh-huh. yee man maanaam soxla ma mbaytin Zarko na ñëw ñu bëre maanaam dañ maa aj man moo tax Zarko di nekk si lamb ji di ndagaju di waaw di cëppi cëppi quoi mais quand Liss Ndiago arrivé uh-huh. Zarko il faut. waaw tout le monde silence waaw. waaw. bëgg naa ci yow. waaw ñu leen delloo ziar bu baax di bëggee àdduna tamit. Uh-huh. di nuyu ñëpp. waaw di leen wane waaw di jégalu waa CNG bu baax. jamono uh-huh. ñun ay xale lañ. Uh-huh. suñuy kilifa ngeen ñoo juum. waaw ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax. waaw di leen wax ne bisimilah dal jàmm rahmaan dal jàmm. waaw comme ça nu mu ko waxee rek. waaw gaale bi dara new si ak leneen ak leneen waaw ñun ay a lañ mais tamit yàlla tel lañoo def soutien de famille quoi waaw tamit ñu yaakaar si ñu bëri na mhm. nañ si gën a jàpp bu baax mais Zarko ñëwal ñu bëre da nga bàyyi bopp mbaam yi ngeen si làmb ji <laughs> mbaamu ndaw baa ngi ku kame na tees eh. boo laa njaago ñu wax la ko loolu mooy mbaamu ndaw bi maa ngi moom nee Zarko la la du xalpulaar. nee na nee na daa bokk si di nuyu Zarko lu mu doon sax maa ko gën a doon xalpulaar <laughs> maa ngi nuyu sama mbokk tukulóor yëpp. Eh. di nuyu diaspora bi yëpp. di nuyu fukk ñaaru Dakar lu ñu koy waxee. fukk penc ak Dakar yëpp maa ngi leen nuyu di bëggee àdduna. Eh. di wax ne Liss Ndiago quand Liss Ndiago arrivé. Eh. tout le monde